ñu ne Afrique boko ko euh, tay tey ñett rek bo jëloon euh, témèr bu nak ñett rek la si Afrique nekk ci limuy euh, contribuer ci ñombe yoyu am té pourtant la sa nek ci ay loraange yépp ci ñun la jëm bon nak mu don lo xamante tay jangat nañ ko ah, bu ñu paré li tax ñu def ci si presse bi moy def si ay plaidoyer def si ay sensibilisation pour que Afrique ñun ñëpp ñu bokk don joxandoo loxo xamné xex bi ñun ñoko ko bokk. Euh, nit ñi te tey jii kilifa gi muy le président de la république ah si jamono yële ñu génne dafa taxawoon wax ne moom mu ngi renoncer si euh, charbon ba ñëpp a tàcc ko ñëpp gërëm ko xam ne loolu de bu ko defee def na lu mu war a def mais dafa mel ni kat ah la ñu waxoon ak li ñuy gis mel na ni bokkul. parce que tey jii bu fekkee ne moom mooy euh, kilifa tey jii nekk Union africaine ah, te àddina yi ñëpp ngay dajaloo di bokkandoo di yëkkatindoo di dóorandoo. donc moom wante itam bu fekkee ne leader kat da nga ko bëgg a doon xool ne ba ñu di ko woowee monsieur Solaire loolu moo ko wax depuis Allemagne ne Sénégal gépp ñu ngi koy euh, Afrique gépp ñu ngi koy wax monsieur Solaire loo xamante ne tey jii dafa waroon a taxaw si Afrique nekk leader woo ñëpp ne leen nañu engagé wu si énergie renouvelable maître ñun bés bu ñu nekkee ay leader bés bu ñu nekkee ay entrepreneur ci activité yi ñuy def bu boobaa dinañ atteindre moo boobu ñuy wax autonomisation